Diouf maa lay fay. tey xam euh, ne ku ne xam àdduna moo xewle Aziz kenn ku ne am nga cofeel si moom muy man muy yow muy keneen muy keneen ak keneen Aziz nit nit ku baax la. dafa naa génn ci làmb mais da ngay dégg promoteur buy tëgg sax daal ne Aziz Ndiaye laa doon jokkalu Aziz Ndiaye moo jël banderole takkal ma ko kon loolu dafa naa Aziz kenn ku am na cofeel si moom. di wax nag euh, yàlla moom moo moo indi moo yóbbuwaat di wax ni yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana ji gën a kawe suuf Tiwaawan yàlla na sedd ci kawam ñun ñu bëri soxnaam ñu bëri kenn xamu ko mais Aziz la ñu bëri xam ñu bëri Aziz xam kon defe naa ne Aziz tey lu mu góor góorlu woon war na koo yokkaat ndax mbooloo mu toll nii muy Tiwaawan ku dem Tiwaawan gis la fa nekk xam ne loolu ñu bëri xam ñu soxnaam mais Aziz la ñëpp xam presque mais loolu rek euh, mandarga la ci Aziz war na gën a góorgóorluwaat gën a yokkaat mi ngi koy def social bi muy def mais mu gën ko defaat man li may xam naa ci dara parce que nit ñi moomu leen te ñaani message yi yëpp benn la internet beeg télé yeeg yëpp benn la ni ni ni koy génnee ci télé bi ni ñu koy ñaanalee yëpp benn la mais di ñaanal yàlla rek yàlla yóbbu ko man li ma xam Aziz rek lay wax li ma gën a marqué ci moom bi ma nas di jëndal kër di ko laaj xaalis bi mu ne ko bu fekkee guy gi di jël xaalis bi di ko dugal feneen duma ko ko jox na jël xaalis bi investir ci wut ci kër làmb ji nangam nangam yàggul li ma gën a marqué Aziz mooy loolu conseiller ma loolu jafe na ci promoteur bu leen tëgg rek bu ma yéene woon dara rakkam bu ma magam moo bokkal ndey baay mi ngi États-Unis muy Laay Ndiaye moom la ma booleel depuis 2012 maa ngi fa moom ak Yamou Ndiaye musul changé kanam mu bokkal benn baay su ma ñëwul sax damay woo kañ nga ñëw ak nangam nangam di ko jaale yaay Laay Ndiaye di ko jaale mère Khoudia di ko jaay Papa Alé Ndiaye Papa Alé buur géwél yow buur di la ko jaale tamit am nga lu cër bu rëy ci Aziz yow bu lu Aziz sax géwél am nga ci cër bu rëy muy man muy keneen ak keneen ak keneen di ñaan yàlla yàlla yóbbu ko àjjana yàlla mënu ko yàlla ko yàlla def bokk si